tant pour moi euh, record itam euh, cas communautaire muy cent quinze ou cent quatorze cas communautaire euh, cent quatorze cas communautaire donc tey dañu battre ay record bu ñu doon wax wér-gu-yaram wàllu wér yaram ak prise en charge bi fan la toll parce que ay jamono bi ñu wax première vague bi amoon na sax ay agents de santé yoo xam ne ils étaient problème de matériel la ñu amoon tey deuxième vague bi yi xam nañ ne malades yi bëri nañu cas yi bëri na mort yi également bëri na comment se porte secteur bon secteur bi bon inquiétude lañ ci ama ah. vraiment ñu ñu nekk ci hôpitaux yi di gis comme loolu nga wax noonu parce que li ma gën a tiital moo di actuellement ñu ngi wax ci ay presque quarante cas graves mm-hmm. or boo déggee autorités yi nee nañ la cinquante lits chauds la ñu am c'est-à-dire cinquante lits bokkul ak mooy service de réanimation avec tout le système de monitoring bi mën a am pour que nit ki bu nekkee ci détresse ak bu mu mënti doon que ça soit respiratoire cardiaque wala leneen dina mën a am assistance parce que dootul mën a defal boppam la mu waroon def muy noyyi wala këram war a battre normalement xam nga ça veut dire que bu ñu tollee ci 40 et ci bii ñu nekk bu ñu dépassé 50 personnes rek ça risque d'être la catastrophe mais man damay wax toujours et je l'ai toujours dit xëy na nag bon dama njëkk ci santé publique avant et man li ma jàngal santé publique prévention da cee am solo trop damay wax toujours les gens parlent de cas grave cas grave j'ai dit cas grave bu amee rek c'est parce que cas dafa am et li ñu war li ñu war a xeex fu mu toll nii man présentement c'est comment arrêter la propagation. mais comment. comment mooy loolu xam nga ñun dañuy jàngal en santé publique li ñuy wax par feu c'est-à-dire bu bu feu de brousse wu c'est-à-dire tàkk-tàkk am tey jii fii war a tàkk-tàkk da ngay jéem a isoler li nga xam ni war naa mën a lakk. Mhm. cest à comment arrêter mais boo nee da ñëw di fay di fay fii. fekk isolé fii li ngay fay fii mën naa fay mais am na lu mënoon boyaat fee pour tàkkaat donc li ñu war a focaliser wu néew ma bu ñu def ci unité réanimation mais lan moo am tey jii mooy cas communautaire yi bëri nañ nan lan mën a def pour dagg chaine bi c'est-à-dire tey ji c'est arrêté épidémie moom bu la ci kenn nax la lutte c'est d'arrêter la propagation loolu mooy premier élément de combat dans une épidémie mais est-ce que euh, dans ce sens euh, yéen yéen a ngi euh, kilifa yi nañu leen ci ci gestion pandémie bi parce que xam nga dëgg la pandémie bi fii ci Sénégal am na nañu rafetlu gestion bi am na ñoo xamante ne ŋàññi nañu ko vous en tant que syndicaliste est-ce que impliqué nañu leen ci gest maanaam gestion bi nu ngeen war a doxalee parce que yéen aussi je pense que vous devez être au devant agent de santé bu mu xaar ñu impliqué ko man de du ma nangu di xaar autorité di ma impliqué dans le cadre de la lutte. mais léegi yéen lan moo doon seen lan mooy yéen nan ngeen taxawee ci wàllu woowu. non ñu ngi ciy taxaw en tant que agent de santé. Mhm. aussi bien sensibilisation que ñu jox ñu moyen que ñu bañ a jox ñu moyen. Mhm. parce que c' une obligation xam lu ma wax la loolu. parce que tey bu débordé. Mhm. ñun ñooy sonn. xam nga tey ji dañuy liggéey ci santé mi ngi mel ni yéen journaliste yi da ngeen obligé ñëw fii def seen liggéey ñun mënuñoo bañ a ñëw xëy hôpital xam nga tey maa ngi dégg léegi docteur Khames mi wax naa par am na ci centre yoo xam ne gars yi dañu toog 15 a ñibbi parce que situation moo leen permettre ñu ñibbi te gis en France aux États-Unis ak nga gis ñoo xam ni réanimation du ñëw nit ñi nekk ci couloir mu wóor ni malade bi malade réa ñibbi sa conscience moo la dul nga rentre nga nga rentré moo tax dañuy ñaan yàlla peut-être peut mbir mi mbir mi mbir mi mën mën mën fi arrêté li ci des nag implication autorité la xëj na gars yi par exemple ils ont une vision beaucoup plus politique masque sanitaire loolu moo ñu différencier ak ñoom mais Cheikh man li ma jaaxal mooy euh, bu yàggul gis nañu Sénégal ci ay classement ci réew yi gën a taxaw ci gestion yi ci gën a baaxle voilà Sénégal jël ci place bu baax loolu nu mën a amee ba tey yéen ngeen di toog fii di am euh, maanaam yu ngeen di ŋàññi ci doxin wi maanaam dafa teguwul ci yoon te ñu ne réew yi gën a am taxawaay bu baax ci gestion Covid bi Sénégal ci la bokk. nu ñu mën a amee résultat yooyu ba pare après ñuy ñëw di wax système. c'est que question bi ñuy posé mooy kan moo ko wax. bon les américains la ñu wax. waaw waaw mais ban américain xam nga bëri na dans le monde man xam nga ñun. ñun dañu am xam nga xam nga. waaw non même même même même première vague bi dama lay jox benn exemple rek. Mhm. gis nga moment bi ñu koy wax. Mhm. le nombre de cas en Côte d'Ivoire moo ëppoon nombre de cas Sénégal alors que le nombre de cas de décès au Sénégal moo ëppoon nombre de cas. Côte d'Ivoire ñun dafa am dafa am dama la wax sànq indicateur sanitaire li ma jàng si dafa laaj ñun bu ñuy évaluer monitoring la ñuy wax. bu ñuy monitorer dafa am ay éléments yu ñuy monitorer su fekkee ni ci base boobu la rek Sénégal mënul jël deuxième mënul jël premier maintenant lan moo tax parce que approche bi def nañ ci ay milliards ak affaire noonu isolé nañ kaay cas traitement à domicile na ci loolu la ñuy apprécier man ci indicateur sanitaire laay wax du ma xaañ ngeen ngeen du ma nag ña ko wax aussi waxuñu wala Sénégal mënu loolu jël deuxième mais man ci base indicateur sanitaire laay wax xam nga la mooy indicateur sanitaire moo jox nañ ma jiw tey jiw naa tey ji récolté naa lu bëri xam nga loolu mooy résultat bi mais lan laa récolté peut-être il y a eu plus de cas de mort par rapport à d'autres pays en même temps aussi ñun dans notre pays peut-être tolloon nañ foo xam ni du ñëpp lañ testé peut-être il y a des gens qui ont développé le corona te kenn xamul que tey jii ñan la ñuy testé 114 cas yi ngay dégg nii ñëpp mooy ñu feebar feebar laa la développé ay signes bu njëkk ka contact lañ doon wax ñu isolé la def ci hôtel même approche boobu moi je l'ai dénoncé dès le début j'avais dit wax naa ko fi dès le départ première émission bi mu mës a wax ko ni leen maladie corona pour les cas symptomatiques jarul woon ñuy dem hôtel yi peut-être di yàq xaalis xaalis boobu mënoon nañu ko feneen mais dans boo demee Espagne dem feneen gymnase leen jël def ko ay box isolé les gars ñu toog fa. yow fi mu ne nii euh, meilleure approche bi lan nga jàpp ni moom la parce que yaa ngi wax léegi il faut quand même euh, couper la chaîne de transmission. mais là c'est l'approche communautaire. le problème est dans la communauté. mais fi mu toll nii lan la ñuy gëmloo nit ñi parce que toogoon nañ fi ay cas on a fait on a voulu faire croire aux gens que peut-être les gens avaient des détresses respiratoires c'est normal mais beaucoup de gens n'avaient pas compris ce qui avait amené ces détresses respiratoires parce que tey jii bu fekkee ni fu ngelaw war a nekk ndox nekk fa wala sang nekk fa dafay boucher place ngelaw la du am mais lan moo indi sang boobu c'est-à-dire que dès le processus xëj na gars yi xamuñu woon ni am na ay rupture euh, vaisseau yoo xam ni peut-être sang boobu dina dem ba inondé fu mu warul woon inondé c'était pas le fait que nit ki dafa am dyspnée respiratoire parce que amuloon capacité li ñuy wax capacité respiratoire pour mën a respirer du woon loolu ñu ne tëb tëb bon embarqué nañ ci nit ñi bon dañuy jël 2 milliards jënd ci alors que ñu jëloon xëñ na bu nu waxoon lu arrêté propagation bi du nu soxla du soxla appareil yooyu parce que du am ay cas cas yu bëree noonu. parce que parce que dernière question on est euh, waaw man man li mu koy li mu koy wax rek euh, mu ngi wax lu am solo mais aussi tamit euh, nangu nga ni mbas mi ni ñu ko gisee tey jii réew yi nga xamante ni ñoo ëpp doole ci àdduna bi sax yëf yi def leen dépassé seen système sanitaire moo gën a dëgër suñu système. donc ñun aussi loolu xëy na mënu mënu mënuñu ci échappé loolu aussi war nañ ko jël en compte mais xëy na laaj bu mujj bi rek tey mooy lan mooy priorité pour à l'heure actuelle. non la priorité fi mu toll nii mooy voir comment arrêter cette propagation bu dee corona bi fi mu toll nii nan lañ ko mën a def pour arrêter ko et oh man je pense que ni ci gars yi doon investir ci première vague bi gisu gisu gisuma ko présentement parce que même nit ñi nit ñaa ngi def c'est vrai demandé wuñu ñu def état d'urgence demandé wuñu def état de siège parce que xam nañ ni li muy am ci conséquence parce que loo xam ni xam nga tey lay kañ lay commencer xamoo kañ lay pare boo ci jëlee yenn mesures yi mën na nga mën nga faj Euh, jàngoro mais di beneen jàngoro donc ñun nekkuñ ci dynamique boobu moo tax man mhm. population bi laay waxal d'abord parce que mag bu nekkee ci lëndëm ku ko gis mu gis boppam ku ko gisul mu gis boppam bu la état bi jàppale ak bu la jàppalu man loolu lañ gëm man loolu laa gëm mhm. nit ñi ñoo war a am conscience et la population doit avoir confiance beneen bi mooy li may wax ci problème mu formation bi mhm. aujourd'hui beaucoup de spécialistes surtout des cadres euh, paramédicaux ça fait trois ans ubbiwuñu concours pour les former il y a un leen si si ñeneen ñi mooy contractualisation bi ñuy def ñu recruter leen directement parce que nit ki bu toogee chaque année ñu naan ko contrat ngay am xelem du nekk parce que période bii gars booy nekk ci àll bi ñoom ñëpp ñu ngi ñëw fii Dakar ndax xool ndax dinañ renouveler seen contrat mhm. mais kooku mën na tëj poste de santé parce que xalaatul ndax dinañ ko recruter wala déet alors que bu amee fonction publique ñu recruter ko du am problème mhm. alors boo nu comparé par exemple ak force de sécurité yi ak enseignants yi enseignants yi 97000 la mais agent de santé tout corps euh, compris 8000 la. dafa tuuti. merci beaucoup jërëjëf. merci xam naa bëggoon nañu mën a wéyal waxtaan bi mais waxtu wi daf ñoo dab. quand ñu koy jaajëfal bu baax Fatou Kiné sunu invité. di ko jaajëf bu baax a baax ci fàttali Cheikh sec encore une fois nekk rek jiite syndicat bi nga xamante ne nag moo bootu ci CNTS FC ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci euh, leeral yi. nekk itam physiothérapeute nekkoon sunu gan ci édition spéciale bi léegi léegi ñu dalal keneen muy nga sama di économiste. xaaral ma lance élément ba pare. Euh, lu jëm ci wàllum koom laata ñuy dalal sunu gan ñu tegtal leen itam benn euh, taxaw seetlu ci koom fii ci réewum Sénégal ñu ne mbas mi euh, da ko laal ni mu laale yeneen secteur yëpp bokk na ca itam ñu gën a yanu seeni loxo di jooy muy lu jëm ci dem ak dikk tourisme waaye itam jënd ak njaay loolu yëpp nag di ay jafe-jafe yoo xam ne ña ca nekk yëg nañ ko bi mbas mi duggee naam itam nguur gi ci weneen wàll ma ngay jéem di def kéem kàttanam di xool naka lay def ba indi saafara Ibrahima Kane lañ ci àndal metti tarlool lool 2020 bëri na ay jafe-jafe yu mu indi ci wàllu koom rawatina ci yenn secteurs yi mbas mi xoj leen bu baax a baax ñim ci gën a laal wàllu dem ak dikk wàllu tourisme wàllu njënd ak njaay yi ngir faagaagal virus bi ñu nemmeeku ne mu ngay lëmbeegum ci biir réew mi senegal daldi jël ndogal tëju fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars autorité yi jël ndogal tëj benn pàcc ci wàllu jaww ji laata ñuy dakkal nag lépp lu jëm ci wàllu vol moo xam Sénégal la jóge wala mu war fee ñëw yiñ ci nangu nag muy vol yi domestique yi maanaam ci biir réew mi ay vol cargo évacuation sanitaire rawatina it ay vol spéciaux yoo xamante ne dañ ko autorisé mu di ay ndogal yu bari yoo xam ne ay jafe-jafe yu tar la indil wàllu transport aérien lu jëm ci wàllu passager yi ñu gis ne lim bi wàññeeku na lu ëpp ñaari million ci ay doomu aadama lu ni mel benn rapport bu association transport aérien international dal di koy fësal ñàkk gi ci wàllu koom ñu natt ko ci fanweeru milliard ci suñu koppar mu soxal transport aérien ñaar fukk ak ñeenti milliards ci lu jëm ci transport terrestre nga xam ne ay jafe-jafe yu metti lañ doon dund rawatina état d'urgence bi ak couvre-feu bi ñu décrété woon ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars beneen pàcc mu jëm ci hôtellerie moom itam sonn na lool ci mbas mi di Covid-19 daanaka téeméer boo jël juróom ñeent fukk ya ci ay établissement hôtelier ñu daal di leen tëj. Ibrahima Kane ñu sant ko bu baax di ko gërëm ci leeral yi sunu gan yi tam yegsi na Mor sama lay wuyoo Mor ñu ngi nuyu. maa ngi leen fay bu baax di nuy aussi seen téléspectateurs yi. très bien la. waaw ñu bëggoon a xam ak moom ni ko ni ko Ibrahima Kane waxee. Mhm. mooy euh, coronavirus bi jaar na fi gis nañu li nga xamante ne ji moom la fi indi ne yàqu-yàqu ci secteur bi. boo laal ah def na fa def na fa ay ay ay conséquences euh, comme 2020 gis nañ ni mu tëddee li ñu bëggoon a xam mooy ban gis-gis nga am ci at mi di ñëw ak koom gi mu di économie bi su ma ko waxee ci ni mu nar a tëddee maanaam ëllëgu euh, économie Sénégal nan nga ko gisee surtout 2020 21 euh, gi. Ah, waaw jërëjëf question boobu dina sawar a tontu trop parce que en réalité bu de loo année bi di ñëw lépp loo xamante bi ci biiru économie rek li jaar ci année yu weesu da ci impact. donc ça veut dire que ñu ngi doon vivre les conséquences donc de la première vague euh, ak mesures yu ci jël yëpp ak gis na toujours ni mu affecté économie bi euh, ensuite deuxième vague bi ak si ni encore ñu gis ne euh, mbir yi ñu ngi commencé di ralentir ça veut dire que plan de relance bi nga xamante ni bii état mettre na ko en place commencé bu ko déroulé déjà mi ngi confronté ak deuxième vague bi te yooyu yëpp jafe-jafe yi dañ ko war a vivre ci 2021 bi donc saa bu dire que tey daal li ci gën wàll li ci ëpp solo moo ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax pour le respect des mesures barrières parce que affaire yi ni muy demee nii su continuer les autorités sont obligées de prendre des mesures beaucoup plus fortes te su boobaa aussi du arrange kenn voilà euh, parce que gis nga ba démb démb am nañ sept euh, cas de mort tey je pense que neuf lañ amoon xamaguñ ëllëg na ngeen huit su ëllëg xamaguma xamaguñ nu ñu demee voilà te économie dafa laaj jàmm dafa laaj euh, donc tranquillité dafa laaj santé voilà boo gisee yenn mesures jël yëpp euh, affaire ba njëkkee am li ko waral mooy ne la sanni prime surtout moo tax kenn mënu ko tëkkale ci gàttal daal 2021 atu jafe-jafe la jafe-jafe yoo xamante bi daj nañ ko gën a sant ci 2021 beneen programme boo xam ne état bi baal ma fàttali ne teg na ko mu di PAP 2A euh, am yéene sukkandiku ci pour suqali koom gi am ñu gis ne réew meek ni muy doxee feebar beeg ni mu sëkkatalee àdduna même buñ ci wékkee yaakaar aussi pertement lay doon loo gis foofu Euh, waaw euh, Pape 2A bi euh, ce n'est pas mal parce que quand même gis na ne en tout cas waxtaan waxtaan ak ñi war waxtaan ñëpp remut nañu information ba mu jël ay mesures ay décisions yu fortes voilà maintenant loolu lépp aussi lu ko sous-entendre mooy ne situation sanitaire bi amélioré wu parce que bu amélioré timit entreprise di gën a nekk ci ay difficultés nit ñi di ñàkk seen i xëy je pense que même les les projection de croissance yooyu ñu def yëpp daanaka day féete bon parce que projet xam nga mbirum croissance ak yooyu yëpp li ci ëpp daanaka li ñuy wax projection lay nekk rek da def say prévision en attendant nag affaire déroulé normal ba ci fin d'année nga mën a confirmer boo xoolee at mi ñu génn par exemple euh, ci loi de finance initiale bi ñu ngi doon def euh, ñu ngi projeté woon euh, croissance bi ci 6,8 pour cent bi corona bi ñëw ci début bi ñu gis ne affaire yi commencé na soxna tuuti ñu jàpp ne xëy na dana dem ba 3 pour cent affaire bi gën a garaawati encore ñu defaat projection 1 virgule 1 pour cent mujj ñu dem ba 0 pour cent gis naa sax ministre def temps yi sorti ne ak mbay bu baax mi jàpp nañ ne war na mën a am ba 2 ma ne loolu euh, bu amee moo ñu gënal mais ay provision yu optimiste la trop trop trop <laughs> waaw ci gàttal daal euh, dana am solo ñu jël tuuti ay mesures wante je pense que il faudrait d'abord ñu aussi aussi ay moyens c'est important parce que boo gisee même plan de relance bi. bi gouvernement bi taxawal pour euh, faire face à la crise da ngay gis ne plus de neuf mille milliards et quelques ko war a wuti jéggaani bitim réew. alors que déjà yow yaa ngi naan hmm, baal leen ma samay bor maanaam nañu effacé bor yi nañ ko si voilà euh, loolu day xaw a posé problème tuuti mënuma fay wala kii jàpp na crise bi ba mu war a mënuma fay bor yi gis na ci man baal leen ma ko waaye lebalaat leen alors que moom mooy fay. man gis naa nga def jàngat ci ëllëgu Covid bi fan la ñu jëm mais man taxaw seetlu bi ma bëgg nga def ko mooy mm-hmm. euh, ci Covid bi nga xamante ne ci la ñu toll atum 2020 bi nga xamante ne euh, fii waxtu rek daañu ci génn bu ci yàlla àndee euh, yéen ngeen di économiste di faral di def ay jàngat ci wàllu croissance tolluwaay ak yooyu gis nga reportage bi jàll tey ay secteurs yu bari nërmelu nañu am na yoo xamante ne ñu ngi ci yoonu nërmelu tey boo doon def taxaw seetlu nan ngay jàngatee suñu économie tolluwaay bi jamono jamono ji euh, tolluwaay bu métti tolluwaay bu métti métti euh, ndax bu dente ne nekk nga ci at moo xamante ni bii daanaka ñu toll toog ay weer yoo xamante bi avion naaw te mu dëkkut ñu tëj frontières yi euh, en plus yu bëri nit ñi di liggéey à temps partiel sax dañu toog seen kër nga gis ne suñu dëkk yi aussi dañ doon dépendre lu bari en tout cas ci famille bari dañuy dépendre ci ñi nekk bitim réew du yónnee ñooñu gis ñu gis nañu dañ leen tëj ñoom tamit ay weer liggéeyul euh, donc ci gàttal daal économie sooxale na lool lool lool donc euh, beneen wàll bu ñu seetlu surtout ci jamono ji mooy secteur informel bi dafa <laughs> dafa <laughs> dafa bokk ci ñuy gën a sonn mais réew yu mel ne comme Sénégal lu ñu woowee pays euh, en voie de développement gis nañu ne secteur informé bokk na ci lu gàddu seen koom tey ñoom ñu nekk ci ay problème euh, lu foo gis ne fa lañ leen war a mën a jaarale ngir ko ñu mën a suqalikuwaat mën a jógaat surtout ci ci période bi ak ak li ñu dëgg. dooguma la sax ñoom dañ leen fàtte woon ci. premier partie bu njëkk bi. muy pratiquement dimbali gis ñu ci woon seen bopp waaw. Er-, er-, erreur mënut a mënut a gën a garaw loolu fàtte secteur informel parce que boo xoolee euh, benn njàngat bu ANSD def ci 2007 bi de ko fàttali moo daanaka chaque année ci marché du travail 200000 euh, jeunes dinañ entrer dans le marché du travail te ci 200000 yooyu boo xoolee les 96 virgule 5 pour cent maanaam téeméer boo jël juróom-benn fukk juróom-benn ak genn wàll daanaka ci secteur informel boobu la ñuy la ñuy yëngatu 3 virgule 3 pour cent rek ñoo nekk ci secteur formel. et public comme privé compris ça veut dire quoi ça veut dire que tey mënoo mën a jàppale koom bi mënoo bëgg a suqali euh, réew mi wala jàppale famille démunie te def mettre l'accent sur le secteur informel donc ça veut dire que euh, lépp lu ñu mën boo bëggee daal xeex mi dëgg-dëgg munoo bañ a ñàkk jàppale nit ñi donc ñooñu moom dafa laaj vraiment li ñuy wax un véritable <laughs> plan Marshall pour booster leen booster leen mais aussi jàppale leen ci organisation yi parce que loolu mooy seen point faible maanaam tey xamante bi organisé wu lu baax même tey bu doon débloqué ay moyens pour dinañ ko jox séddale bi sax day poser problème voilà parce que doo xam ki war a am lii ak war ëppale sa morom yooyu yëpp problème la ba tax na bu ñu ci jógee aussi jàngat bi ñu ci war a def d'abord mooy ñu jéem leen jàppale ba ñu ci ëpp ñu formaliser leen parce que am ñoo xamante ni bëgguñoo dégg loolu ndax jàpp na ne organiser wu formaliser wu mooy commencé di fay impôt lu bari alors que demee wut noonu demee wut noonu gis nañu gis nañu également que y a quand même des secteurs phares yoo xamante ne xëy na euh, réew boo gis am na secteur phare ah, bu muy sukkandiku pour mën a relancer économie euh, tey fii ci Sénégal lan mooy secteur phare yi nga xamante ne war nañ ko dooleel pour mën a relancer suñu économie ëllëg. Euh, déjà man jàpp naa ne. secteur primaire bi nañ ko mën a bàyyi mu des ginnaaw. waaw donc mu nekk mbay mi càmm gi fekk yooyu moom waru leen bàyyi mu dem ginnaaw boo xoolee euh, Sénégal depuis mu am indépendance ba léegi lépp lu ñuy lekk dañ koy jéggaani bitim réew alors que am nañ suuf am nañ ndox jeunes yu bëri liggéeyul mooy yi mën nañ ko mettre à la disposition encadrer leen ñu jéem a dem vers ce qu'on appelle alimentaire kooku moom je pense dégg naa yi président wax ko ci euh, plan de relance bi warul tun ñem rek ci discours dafa war a nekk léegi une réalité sport rek une réalité voilà boo xoolee. mais donc ma la may baal ma de. est-ce que loolu dana yomb ndax gis nga euh, campagne commercialisation arachide la gis nga coow li juddu ci gerte gi. Mm-hmm. donc bu fekkente ne lijjanti loolu daf ñu të fu ñu mën a jaar bay wax euh, suffisance euh, alimentaire. <laughs> daana daana jafewul nag question de volonté ci kese la du leneen boo repéré wu tuuti ci ci par exemple mbayam ceeb mi. nga gis ne président Macky Sall bi mu ñëwee lancé programme d'autosuffisance alimentaire en riz en 2015 dañ ko atteindre en 2017 loolu aussi njuumte amoon na ci. parce que mais malgré tout quand même il bon significatif qui a été réalisé. nga xool fukki at ca gannaaw ñam ci ñaar at lañ ci def ci progrès presque defuñu ko toonoo voilà donc boo génne ay moyens rek nga jëm fan ko destiné loolu kese mooy problème waaw nga ñi nga xamante bi seen xam-xam ak foofu nga jëm nga jàppale leen mais aussi comme euh, yi nga xam ne nee nga loolu foofu nga ko dugal na fa dugg très bien jërëjëf Mor ñu lay sant bu baax di la gërëm waxtu wi gàtt na waaye am na solo fukki simili rek lan du may euh, muy xeetu rétro boo xam ne da ngay ñëw rek toog ci plateau bi sànni ci ay kàddu du mën a ñàkk ñu lay sant bu baax di la gërëm euh, ci sa teewaay di la souhaiter une très bonne année merci merci merci beaucoup Mor Gassama moo kon euh, suñu ñaareelu invité euh, dañuy wéyal laata ñuy yëkkati jataay euh, dem ci diwaanu Linguère léegi léegi lay doon. aywa ñu dem ca diwaanu Linguère Linguère itam jot na wàllam ci nar wi lu jëm ci mbas mi juróom benn fukk ak juróom-ñaar ci limu doomu aadama di doomi jolof yoo xam ne am nañu ko loolu nag taxaw seetlu la buñ ci def mbas mi wane na ay jafe-jafe ci wàllu wér gu yaram ca diwaanu Linguère dañu fay fekk Mouhamadou Moustapha Ndiaye Mouhamadou Moustapha jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di daral fii ci département bu Linguère comme ni ngeen ko nemmeekoo fii ci biir Sénégal deuxième vague coronavirus département bu Linguère enregistré ay cas yu bari. boo jëlee district sanitaire bu Daara ñoom am nañ 44 cas boo demee fële ci district sanitaire bu Linguère bi mbas mi tàmbalee ak léegi ñu ngi toll ci 23 cas ñoom nag fële ci Linguère enregistré nañ ñeent ñoo xam ne dañoo ñàkk seen bàkkan ba looloo tax rek ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu kër docteur di ñaax askan wi ngir ñu moytandiku li nga xam ni moo di automédication ndax li nemmeeku rek mooy bi mbas mi tàmbalee ak léegi rawatina deuxième vague bi ñeent ñàkk seen bakkan amu ci kenn koo xam ne ca bërëbu fajukaay ba la ko ñàkkee looloo tax sax ba ñi xam ne ñooy autorité yi bi nemmeekoo deuxième vague bi ni muy duggee jógee fii ci département bu Linguère amal nañ benn CDD ngir tëral ay pexe yoo xam ne dina tax ñu mën a xeex ak doomu jàngoro bi ci loolu ci leen désinfecté li nga xam ne moo di lieu public yi daal di jël ay dogal daal di tëj li nga xam ne moo di luuma yi daal di fexe ba gendarmerie di def ay patrouille di wër ci koñ yi di jàpp ñi nga xam ni takkun masque loolu tax sax ba képp koo xam ni teg na la loxo na nga fay juróom benn téeméer kon nag mën na ne rek sensibilisation bi mi ngi mais teewul ba tey ñu ngi enregistré ay cas comme ni ngeen ko nemmeekoo rek 2020 mi ngi tàggoo ñu ngi dugg ci at mu bees ñuy ñaanal rek ñi nga xam ne ñoo nekk ci Jolof rawatina ci Sénégal ñu leen di ñaanal atum jàmm atum santé te mbas mi suñu borom jëlee ko fi. Mouhamadou Moustapha Ndiaye yal na yàlla nangu ñaan ñuy nuyu bu baax a baax waa Jolof bu nu jógee ca diwaanu Linguère dëkk Mouhamed nee na dafaa bëri waal xam naa mook Chérif bu nu paree waxtaan ba xam ku ci ëppale eh, ca diwaanu Jolof. jolof jolof la Chérif de nee na moom moom jolof moom waaw Chérif moom jolof Chérifa moom jolof waaye yéen ñëpp ngeen dellu ci ginnaaw euh, muy noonu Mor Gassama moom mit waa jolof la ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ci seen safo ak seen kóolute di leen ñaanal une très bonne année bu nu jógee ca jolof ñu dem Sénégal oriental Tambacounda itam ñaari fan ci weeru mars la mbas mi dugg ci réew mi ñoom ñaari fan euh, ci weeru euh, avril atum 2020 ci lañ tàmbalee jot seen wàll ñoom ñu ne lu toll ci téeméeri doomu aadama ak ñaar fukk ak ñeent amee nañ ko fa waaye ba eh, fi ñuy waxee juróom-ñeent ci app li muy aji tawat ñoo fa nekk di faju Moussa Oumar Gueye ñu ngi lay nuyu. maaleykum salaam Fatou Dieng ñu ngi lay fay di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp eh, bisimilah leen ci diwaanu Tambacounda. tey jii ñëpp xam nañ ni mooy bis bu mujj ci atum 2020 ba tax bu ñu bëggee def situation globale feebaru mbas mi ci diwaanu Tambacounda mën nañ jàpp ni rekk ci xayma ak tënk ci ñaari fan ci weeru avril ba tey jii ñuy wax ni luy toll ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti nit ñoo àndoon ak feebaru mbas mi coronavirus ci diwaanu Tambacounda. mais nag bu ñuy xool lu jëm ci wàllu deuxième vague bi nga xam ne mi ngi tàmbaliwaat ñetti fan ci weeru décembre bi ñu nekk nii ak négéni si am na fukk ak ñetti nit yu ànd ak feebaru mbas mi waaye ci jamono jii ñuy wax ni juróom nit ñoo ànd ak feebaru mbas mi ci diwaanu Tambacounda kenn moo ci nekk ci CTE centre de traitement bi nekk ci hôpital régional bu Tambacounda ñeenti ñi ñu ngi leen di toppatool seen wér-gu-yaram ci seen ay kër fii ci Tamba yeneen ñeenti ñu ngi leen di toppatool seen wér-gu-yaram ci département bu Koupantoum ñu xoolee nag Goudiri ci biir ay bés bi amaat nañu benn cas te Goudiri gëjoon na am ay cas yoo xam ni nemmeeku woon nañ ko foofulee di xool nag ci li nga xam ne moo aju ci wàllu mbas bi ba léegi ni si ci weeru décembre bi ñu nekk nii xam na kenn koo xam ne bakkanam dafa rot ci département bu Koupantoum kooku nag ba mu faatoo ginnaaw bi ñu defee ay prélèvement amoon na ñeenti nit yoo xam ne wàlloon na leen ñooñu nag mooy ñi nga xam ne ñi mu dëkkal ak seen ay jegeñaale waaye ñu ngi leen di toppatool seen wér-gi-yaram bu baax a baax waaye itam ba tey deuxième vague bi tàmbalee ak negéeni si am na ñetti nit yoo xam ni testé nañ leen ñu nekk négatif ñu déclaré leen wér nañu ñooñu itam ba da war a dellu ci seen ay kër to ak àndaat ak euh, nit ñi mën a àggale seen ay yëngu-yëngu xanaa rek fi ñuy jeexale mooy di gën a ñaax nit ñi nañu toppatoo lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu geste barrière yi takk suñu ay masque yore suñu ay gel ak di wattandiku lépp loo xam ni euh, dañ koy tere waaye itim ba tey mu doon occasion ci ñun comme tey ji mooy 31 décembre ci atum 2020 ñuy ñaan yàlla at bi nga xam ne mooy at mi jëm atum 2021 ñu ci ñaan naataange ak wér ak wérle bu fekkente ni dañ ko daan wax bu jëkkoon at mi ñëw bu nammee ñaaw yàlla mel ni ren léegi wax yooyu moom daanaka dañ koy faase dañu naan rek at bii ñëw bu nammee ñaawit yàlla bu mu mel ni atum 2020 di jaajëfal bu baax a baax am su boo di Amadou Diédhiou moo ñu jàppale ci wàllu tournage bi yéen itam di leen di suwete les vœux no vœux les meilleurs pour atum 2021 meilleur vœu Moussa Oumar Gueye yaa ngi may soxna si mu ne day yedd 2021 ne ko viens ne fais pas comme ton grand frère ne fais pas comme ton grand frère bul ñëwee na nga góorgóorlu te nga te nga dégg ndigal boo toppee ci ay tànkam di nga ko toj xam naa lool moom mooy li <laughs> Moussa Omar Gueye. 2021 <laughs> bu nammee ñaaw yàlla mel ni 2000. non kii xanaa <laughs> ñoom ñëpp ci lañ leen askan fu nekk taxaw nañ fa miroir Covid Fatou Kiné ndeysaan. Euh, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ñoom xemes ñun suñu correspondant ñoom suñu correspondant régionaux yi mbas mi tax léegi ñëpp miin lañ xam naa seen seen ñëpp miin bi soo xemes bi mu fi ñëwee suba li mu fi wax sax dafa reetaan lu mu ne xam nga dañ ah. naa <laughs> dëgg la <laughs> mu jox ko docteur eh, El ma Mamadou Ndiaye en tout cas Moussa Omar Gueye ñu ngi lay souhaiter tamit très bonne année naka noonu waa Tambacounda Mohamed laata ñuy yeewi gan gi amoon nga dernière question waaw waaw waaw suñu gan gi euh, monsieur Gassama laa bëggoon a laaj tey président de la république ni mu ko baaxoo day def discours à la nation ñu baree bari ñu ngi koy séntu fu bari mais ci wàllu koom wàllu économie euh, lan nga ciy séentu ci moom juste rek ci quelques secondes comme Fatou dafa bëgg a tëgg. waaw li ñu ci séntu mooy d'abord euh, plan de relance bi donc nu ñu ko war a doxalee kañ effectivement lañ ko war a war a vraiment mettre en pratique ak surtout autosuffisance alimentaire ñi ngi xam ne annoncé nañ ko yan jéego lañ fas yéene def waaw donc loolu ñaar yooyu daal ñu ko ci xaar bu baax a baax. jërëjëf Mouhamed euh, sëñ Gassama ñu lay souhaité waat encore une fois une très bonne année di ko souhaité suñu téléspectateurs yi Mouhamed ma bàyyi la nga présenter say vœux téléspectateurs yi yow it atum 2020 ci lañ la découvrir macha allah ngay euh, def ay éditions yu am solo euh, ci rédaction bu télévision Futur Média Mouhamed Ndiaye xam ngeen ne groupe Futur Média yàgg na fi rajo ba itam ndax moom mooy borom jërë ngeen jëf gis naa sax ay xale yoo xam ne dañuy TikTok di ko toppandoo ci yéene kaay yi kon mu mel liggéey bu rafet na te ñëpp a koy rafetlu en tout cas ñu lay encouragé itam di la bàyyi ak euh, téléspectateurs dellu leen sant rek gërëm leen euh, dellu sant yàlla également 2020 xëy na euh, neex na naqari na. Mm. li tax ma ne neex na mooy yàlla def na ñoo ngi nii di ko nettali. yàlla def na ñoo ngi ci jàmm amug wér toog ci plateau bi. Mm-hmm. neex na mm-hmm. li tax ma ne naqari na président Macky Sall wax na ko keroog mu ne ku xool ci ñàkk seen seen seen mbokk. wallaay war a xam ne corona lu lu lu lu am la. Mm-hmm. man nag yàlla sutur dimbali na ma. ñàkk naa sama baay mais tax du ci corona. mais ñàkk doomu aadama ci boppam moom it ci 2020 gi la mhm. donc maak ñi nga xamante ni dañoo ñàkk seen bokk ci fànn boobu daanaka soriante mhm. mais dellu ko sant yàlla rek mhm. dellu ko sant yàlla di ñaan lépp lu ñu ci dund ne jafe-jafe dund ko ci ne tolof tolof yàlla boole ko 2020 rek yóbbu ko moom nañ ko diril cin rek mu dem xéewal yeeg bànneex yeeg taw féex yeeg jàmm yeeg yëpp daal yàlla indi ñu ko 2021 may ñu aussi kattan buñ mën a muñee coono bi ñu dund 2020 parce que nit ñi sonn nañ dee metti na torop voilà ñi daawul laaj ñooy laaj ñi mhm. daawul sëngéem ñooy sëngéem dëgg la lépp nag dogalu yàlla sunu borom moo ñu ko teg moo ñu koy teg dëgg la moo tax yàlla a xam ne day dem ca marché ba taaba taaba indil njabootam mu kooku mënul liggéey à distance xamul sax lan mooy webinaire donc kooku xaarul virement euh, lu muy xaar moom mooy ñaqam lay dundee ca ma ngi koy daane ca marché ba mm-hmm. bu ñu tëjee marché ba ba du amati fu mu nekk le faaw mu sëngéem dawalkat yi itam naka noonu xam ngeen ne dem ak dikk bu ñu nee état d'urgence itam tëj ñi nga xam ne dañuy dem dëkk dëkk interurbain ñu taxawal ko ñoom it Mouhamed xaw day xaw a doy waat amuñu beneen liggéey bu dul dawal du ñoom kese ñi ñàkk seen liggéey itam ñu ngi leen di mastawu di mastawaat encore une fois ñi nga xam ne euh, tey euh, seen i mbokk ay jege ñaale ña nga barzak mbas mi moo ko waral wala euh, déet ni mu ko waxee ñi ngi bokk ñoom tiis wi di bokk ak ñoom naqar wi fàkki ne ma nga ko Fati euh, merveille moom xam naa ni ni Mohamed wax rek euh, duma ci jaaraat ay ñaan yu am solo la wax ndax 2020 euh, moom jàpp nañ ni année bu macabre la aussi ci ñi fi bàyyi ko moo xam mbas mi moo leen yóbbu mbaa yóbbu leen di dellu ci say kàddu rek ni ñu ko waxee léegi yow tamit di leen ñaanal bu baax a baax mhm. waaye tamit di ñaanal Sénégal mhm. ndax wax dëgg neex yàlla 2020 moom lu ñu dund mhm. yàlla na fi yem daal loolu la ñuy ñaan Euh, di ñaanal daal euh, mu nekk 2021 atub ngi mhm. euh, di ko ñaanal kenn ku ci ne. ci mhm. plateau bi toog fi ndax fii ku fi nekk rek. Mhm. wax dëgg neex yàlla gis nañu ku ci ne liggéey bu am solo bi nga xamante ne yaa ngi koy def. Fati tàmbale ko ci yow xam nga ne sa liggéey de su ko naatable liggéey bu am solo la. kenn nga des ci sa ginnaaw la ñuy topp Fati ne. <laughs> ma ngoog Mouhamed Ndiaye it naka moom <laughs> di souhaiter tamit suñu invité bi wax dëgg ne dinañ am chambre neuf. chambre neuf. ma ngoog dinañ am chambre neuf. beneen wala wala appartement 221. moom damaa sonn ci yéen. <laughs> du ma jeexal nag faat euh, Fatou te ñaanalu ma tamit suñu waa dëkk ndax mm-hmm. wax dëgg ne yàlla ku ne. Mm-hmm. Euh, fa nga fa nga bokk. Mm-hmm. mooy sa tiitar. Tambacounda googu na nga xamante ne mooy sama dëkk tamit maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax di leen souhaiter. Euh, bon année di ñaan aussi projet yi nga xamante ni kilifa yi dañu koy jël. nga la nañu gestu réewum Tambacounda bu baax a baax diwaanu Tambacounda sax lay wax bu baax a baax. dëgg neex yàlla. cërale leen ndax euh, xam nga Sénégal oriental la. Mhm. te tamit tey nee nañ mooy euh, un tiers. boo mhm. jëlee euh, ci Sénégal waaye tey ci wàllu infrastructure wax dëgg na yàlla dafa des lu bari bari loo xamante ne war na war nañ ko fa def. ni yeneen diiwaan yi ma leen di bàyyi xel di leen def un coucou. Mhm. di leen ñaanal bu baax a baax ci 2021 bi ñu dëgmal. amin yal na yàlla nangu ñaan Fatou Kiné Deme moom it ñu rafetlu bu baax liggéey bu am solo liñ ko wax nag mooy li gën a ëpp solo dañoo xamoon teral gan euh, tatakal ko waaye nag gan gi moom ba dëgg fa yàlla siis nañ ko buux nañ ko demul mais ñi ngi ñaan rek mu dem te itam dem beek askan wi ñoo ci jàpp li nga xam ne moom mooy geste barrière ñu gën koo jëmmal euh, bañ a bàyyi benn relâchement ndax xam nañu ne jamono ji ñu toll moom ñàkk sa bopp mooy ñàkk ña ngay jëflanteel ñàkk itam euh, say jegeñaale téléspectateurs yu télévision Futurs Médias amuñu seen fay gis nañu seen cofeel gis nañu seen kóolute fu leen mën a nekk moo xam ci réew mi wala ci biti réew gis nañ ñi ngeen safoo groupe Futurs Médias ñun nag dañuy defar ba mu baax jox ñu ay chapeau ñu liir ñi ñuy gàcce ngaalaamaal mooy équipe technique bi nekk sunu gannaaw reporter yi nekk sunu gannaaw équipe de coordination bi euh, ku ci ak sunu correspondant yi bu ñu waxee équipe bi rek ñoom ñëpp waaye correspondant yi li nga wax Mouhamed am na solo mbas mi li ma ko wax feeñal na leen ba ñoom ñëpp ay ay star la ñu duñu ay star <laughs> ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen jaajëfal ñoom ci seen liggéey waaye kii wax ki koy déglu mooy mbokkam ki toog ci télé bi ki koy mooy mbokkam sunu ay téléspectateur amuñu seen fay sunu téléspectateurs yi amuñu seen fay groupe Futur Média euh, ci sama kàddu la ko dalee ca PCA ba ci gën ndaw euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci seen cofeel ak seen kóolute waaye ni ko waxee nag bu ñu jaajëfal ñu remercier suñu mbokk yi waa rédaction bi maam Biram sonn na lool ci coordination bi sonal nañ ko waa équipe info du matin itam sunu réalisateurs yi kenn du lim ndax bu ñu limee dañuy jum mais équipe technique bi nekk ci suñu gannaaw ñu ngi leen di jaajëfal euh, ci seen patience di leen jaajëfal itam ci seen professionnalisme euh, ndax ku nekk xam na ne liggéeyu télé yombul euh, waaye itam yéen ñiy branché bu leen ñëwul dara du jag ñu jaajëfal leen bu baax a baax encore une fois sunu ay reporters cadreurs yi monteurs yi bu ma nee équipe technique bi bàyyi mu ma kenn di souhaiter une très bonne sunu chauffeurs yi et bi ñoom ñu ngi def liggéey bu am solo logistique bi Fatou Kiné Euh, merci beaucoup ci rappel bi li mooy xeetu lim boo limee rek da ngay tàmbalee jum administration kon qu'est-ce que ñambaasal administration service commercial <laughs> voilà équipe de production <laughs> waa digital parce que nañu wax groupe Futurs Médias foofu laa tàmbalan mais digital bi tamit am na solo bu ñëwul sax ñun dañuy kaas Mohamed merci beaucoup pour le rappel jaajëfal leen encore une fois di leen souhaiter une très très très bonne année di ñaan atum yàlla na euh, tax ba ñu mën dund ci ci sutura dundu ci jàmm ak salaam ndax 2020 ni ñu ko waxee métti na euh, te itam euh, na dem rek ci kàttanu yàlla bàyyi ñu ak 2021 2021 nekk atum naataange c'est vrai que les débuts ne seront pas du tout faciles ndax xam ngeen ne mbas mi demagul waaye ñi ngi am yaakaar euh, di jaajëfalaat encore une fois askan wi di leen mastawu ci bépp jafe-jafe boo xam ne am ngeen ko ci àddina di leen wax ne ñun groupe Futurs Médias ñi ngi ànd ak yéen boobu jafe-jafe programme bi nag day wéy tey ngeen di ngeen am en direct discours à la nation bu président de la république ah, di ngeen am itam yeneen programme yu jëm ci wàllum divertissement ndax ku ne xam na ne 31 décembre bi dafa wuute nit yi génnuñu ñu bëri dañuy toog seen kër ah, bu ñu amee euh, télévision bu leen di wéttali mu boole utile ak agréable dafay baax di leen euh, wax itam euh, bon appétit dik leen dajee 2021 ci kattan yàlla yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn tëdd yàlla bu kenn sonn jaa ngeen jëf ci seen cofeel ak seen kóolute ñu yendu jàmm